bismillahi irrahmaani irahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi fii ci diwaanu Thiès di jaar ci suñu sit bi nga xam ni mooy Thiès info eh, di ñaanal suñu mbokki jullit yooyu nga xam ni saay-saay dal na seen kaw démb ci New Zealand fekk leen ñuy joxe seen faratas ajjuma mu dugg ci ñaari jumaa rey fa lu mat juróom ñeent fukki nit ak juróom-ñett muy mbir moo xam ni suñu lay wax terrorisme foofu la terrorisme mën a yem ndax non seulement rey bakkan ni mu foore waaye fekk nit ci bërëbu jaamukaay yàlla waaye fekk nit aussi muy def loo xam ne suñu borom moo ko digal nga fekk ci bërëb bi nga xam ne néegu suñu borom la subhaanahu wa taala nga faagaagal ko jël bakkanam am na si ñoo xam ne sax ay ndey ak baay lañ mu jël baay ba jëlaale doom ji loolu di lu tiis lu metti loo xam ne fu jullit ne ci àddina bi war na ko mettitlu te tey jii waa ju saay saay boobu nga xam ni waa Australie la du waa réew ma sax ñoo def jëf jooju su yoroon tuuru jullit wala ñu ne ab jullit la da dégg àddina bi yëpp naan terroriste terroriste waaye fu ne ba tey dañ naan un individu la ñuy wax rek tooy mu mel ni terrorisme bi ñu taqal di ko taqal ci lislaam bokk ci lislaam askanawu ci lislaam terrorisme mooy bépp saay-saay boo xam ne yaa ngi jóg ngir tooñ rawatina tooñ nit ñi seen pas-pas tooj ni ñi seen dëkkuwaay tooj nit ñi ci bërëb bu sell bërëb bu jaamukaay yàlla kon nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu di ñaan kilifay àdduna bi yëpp rawatina kilifay réewu jullit yi ñu metti lu lii te gën a jël sécurité ci jumaa yeeg jàkka yi ba pare gën a xam ni saay-saay yooyu ñu jéem leen a xam te xam ni li ñuy def du dara lu dul banditisme ak terrorisme ñun nag ci turu forum islamique pour la paix nga xam ne ñu ñoo ko jiite ñu ngi métti du jëf jooju di ko naqarlu di ñaanal mbokk yi nga xam ni seen bakkan jaar na ca dem yàlla jàppe leen ay suhada suhada mooy ko dee ci wàllu waa waaru lislaam yal na leen yàlla teeru ci àjjana yu kawe seeni mbokk ak seeni doom ak seeni soxna ak seeni njaboot yàlla teg ci ñoom loxo réew moom ñu ko defee ñëpp xam nañu réew la moo xam ni réew la moo xam ni réew mu am jàmm la réew mu am stabilité réew mu fonk pas-pasu doomu aadama yi lañ waaye saay-saay moom foo dem fekk ko fa kon nag ñu ngi métti du jëf jooju di ñaan nguuru réew moomu sanction yi gën a metti ñu teg ko ci kaw saay-saay boobu ba ñeneen ñu mel ni moom dootuñu def jëf ji ñaan yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bi def jàmm ci diine ji def jàmm ci askan wi waaye defal jàmm jullit yépp ñaan yàlla réew mi nga xam ne am ñu lu moomu ñu lislaam yàlla sàmmal ñu ko ba saay-saay soosu bañ fee jege bañ fee am wàccuwaay ndax suñu réew yi réewu jàmm la réew stabilité la réew harmonie la réew dund ci ak jàmmoo la ñu ngi rafetlu déclaration bi nga xam ne son excellence président Macky Sall def na ko ci nga xam ne dafa ne ci vacances sax waaye foofu ma ne ca saasa la jël kàddoom yëkkati ko métti lu jëf ji ñuy ñaan réew àdduna bi yëpp imaam yi boroom xam-xam yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu yëkkati seen kàddu te xam ne jëf yu ñaaw la jëf ju safaanoog pas-pasu doomu aadama la jëf ju safaanoog humanisme la mooy ak jëf ju safaanoog diine yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci àdduna ndax xam ngeen diine yëpp suñu borom a ko wàcce waa diine yëpp jàmm moo la woote bennoo bëggante rafetal sa diggante ak askan wi rafetal sa diggante ak réew wi rafetal sa diggante ak pas-pasu doomu aadama yi kon daal ñu ngi koy métti lu baax a baax a baax di ñaanal mbokk yi nga xam ni seen bakkan des na ca yàlla tee doon ci àjjana yu kawe ya seen i njaboot yi yàlla teg ci loxo di jaajëfal chaîne bi nga xam ne mooy Thiès nga xam ne fu xew-xew yu mel ni amee ñu dem ci kilifa diine yi sakku seen kàddu may leen occasion buñ mën a waxee liñ gëm mooy yëkkati kàddu ñaan yëkkati kàddu métitlu yëkkati kàddu solidarité ak suñu mbokk yooyu nga xam ni ñoom la jëf ju safaan jooju dal seen kaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu